أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala nu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ba tey ñu ngi ci kitaabu tawxid ba tey ñu toll ci ñaar fukkeelu bunt bi ak ñeent hadis biñ ciy jël tey muy xadisu nisaa yi mu jëlee ko ci abu hurayra radiallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara wa man sahara faqad ashraka wa man taallaqa shay'an wukila ilayhi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bu leen fàtte bunt bi mu ngi ba tey ci buntu njabar di leeral ana lan mooy njabar ana lan moo ci bokk ana lan lañ ci génne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na man aqoda man bi man chart la ndax ku def lii bokk nga ci nàngam ba pare man bi encore ismu mawsul la kon nit ñi lay waxal ñi am xel mu ne yonent bi nee na man aqoda képp ku fas képp ku takk képp ku jël ay wëñ wala nga jël ay buum wala nga jël ay laar nga fas ko man aqada képp ku fas uqdatan benn fas fas benn takk-takk summa nafasa fiha après mu ëf ci yonent bi nee na kooku faqat saxara kooku njabar na xam ngeen ne loolu tey ci sunu xeet ci sunu xeet tey ñépp xam nañ ko néew na nga xëy ba jant bi soo gisoo ku takk wëñ gu ñuul wëñ gu weex ak wëñ gu xonq benn mu takk ko ci tànkam wala mu takk ko ci loxoom wala mu takk ko ci baatam kooku takk loolu boo ko nee lu tax nga takk li lu mu lay tont nangam moo ma doon métti ñu fasal ma loolu mooy dalil waa ji lu tax mu dem ñu fasal yonent bi nag nee na képp ku fas fas fas nga tëfli ci takk ko yonent bi nee na yow njabar nga te njabarkat du dugg aljanna njabarkat yéeféer la yaa ngeen ci quraan yàlla mu ne wa min shari nafathat fil uqad pas-pas yango bokk na ci li jullit bi di muslu su yeewoo suba di jàng ñaari saar maawzatayni qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas yonent bi tuddee ko ñaari muslukaay yi xam ngeen ñaari saar yooyu li tax mu wàcc te dañoo njabaroon yonent bi bokk na ci li ko dindi ñaari saar yooyu la ko yàlla jox ñaari saar yooyu teewaay bi ñuy jàng tey lan lay wax wa min sharri yow yàlla yàlla nga ma musal ci bépp ay an nafasaati kuy tëfli fil uqadi ci ay pas-pas képp koo xam ne njabarkat la day jël turu nit di ko fas wala mu jël dara ci nit di ko fas yow yàlla yàlla mu musul ci kooku ci aw ayam kon xeetu njabarkat yi ni ñu baree la ñu wuutee waaye yonent moom daf ñuy leeralal kan mooy njabarkat ak kan moo dul njabarkat kon képp koo gis muy defar ay wëñ di takk yonent bi nee na kooku njabarkat la man la wax man man aqada képp ku fas uqda benn pas pas summa nafasa fiha mu tufli ci yonent bi nee na waajooju faqat saxara njabar na te njabarkat moom wala yuflihu saahiru haysu ata fu mu mën a ñëwee xeet bu mu bunt bu mu mën a jaar yonent bi yàlla nee na du texe innama sanau kayda saahir jàng ngeen ko ci diggante ñëpp Moussa ak njabarkat yi kon takk ay wëñ takk ay xaaw takk ay pettaaw yenn saa yi nga gis ki wat ki takk pettaaw pettaaw bi dañ cee takk ci wëñ léeg-léeg nga gis xale bu jigéen buy feeñal ay xale bu liir buy feeñal ay bëñ ñu ne yóbbu ko barabu sàngam ñu defal ko ñu fasal ko yenn saa yi nga gis ku am taab ñu ne nañ ko fasal yenn saa yi ku am angine ñu ne nañ ko fasal yenn saa yi ku bëñum di métti yenn saa yi ku am béy baaraam nga gis ñu takk ko nga gis ko mu ne nii nag nga ne ko lii lan la mu ne tawa sama loxo bi am nu métti léegi maa dem ñu ñu takkal ma lii ndeysaan ibnu mas'ud bi mu gisee soxnaam takk lu mel noonu daf cee dugal loxoom ba mu teeñ mu xëcc ko mu dagg mu ne ko ibnu masud ak waa këram ñoom yàlla doy na leen ñoom lii seen yoon nekku ci la ganiyun an haza ñoom doylu nañ lii lii duñ ko laal ana yàlla bu fekkee nag waa ji day taf li waaye li muy taf li tafli ko ci ay wëñ di ko fas dangaa ñëw ne ko sama loxo day métti wala sama baat day métti wala sama bëñ day métti wala sama bopp day métti mu jàng xulaasore xulaasore nas daal ko ci tufli loolu dara nekk ci loolu aayul loolu ci diine dara nekk ci li ñu bañ mooy def ko ci ay weñ wala def ko ci ay wuñ wala def ko ci ay këyit wala def ko ci di ko takkaloo nit loolu dañ ko tere amma tufli ko ci ndox jox nit naan wala nga tufli ko ci yaram bi fii miit jàng ko tufli ko ci beneen bi mooy waa ji tufli ci sa yaram wala comme da lay ñaanal soo mëneen xam li muy wax dina ci baax balaa mu faa nekk naan diikum daakum affaire yooyu ay salaali muhammad wa alaali muhammad ay jiifi jaafa jafta jafiyan karja marja lu kiin xamul yoo xam ne loolu loolu baaxul waa ji na wax li nga xam ne da nga koy dégg ay allahumma ak auzu bi kalimatillahi tamma ay rabbana qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum loolu moom leer na ay ñaan la daf lay ñaanal su ko ci tuflee loolu borom xam-xam yi ñëpp ànd nañ ne dara nekk ci amma di la wax ay baat yu kenn xamul ah naan nii di fattasu loolu yëpp amul cëslaay ci diine loolu yëpp wérul te jullit dafa war a moytandiku lu yonent bi aaye waaw waaw loolu if soo ñaanee mën nga mën nga tëfli tëfli ànd jóge sa gémmiñ ñëw dal fii métti loolu dagan na loolu permettre nañ ko terewuñ ko li ñu bañ mooy waa ji li muy wax xamoo ko ñaareel bi mooy daf ko bëgg a def ci ay weñ ak ay këyit ak ay wëñ ak ay petaaw ak ay sagar ak loolu dañ ko tere da ngay gis dañ ndeysaan nit faatu ñu dem suul ko ñëwaat waa ji dee nit ñi ñu xotti yéreem doomam yëpp ñu takkal leen ko du ngeen ko gis ñu ne dañuy bañ mu leen di gelu gelu ñu koy gelu maanaam ñu namm ko ba ba feebar ñu ne loolu lañu ba ma ñu takkal ko yére waa ji ñu xotti yére waa ji takkal takkal leen ko Sénégal réer gi daa bëri loolu moo tax sunu diine bi yëpp jaxasoo sunu diine bi jaxasoo ba pare am encore ñoo xam ne mbir yooyu ci la ñuy dund soo ko bëggee weddi sax ñu taxaw di ko dëggal léeg-léeg kenn ci ñi feebar sax taxaw ne la waaw wax dëgg yàlla de man sama loxo bi da doon métti de mais bi ma demee ci paa bi dafa wér de dafa sedd waa seytaane moo lay tafu pour nga am pas-pas boobu nga ni lii moo la faj yàlla faju la te boo jàppee ne wuñ bee la faj rek yow def nga musiba te nag seytaane loolu la bëgg moo tax boo fa demoon dana ko jaral moom toog di ëf pour mu sedd pour nga jàpp ne moom moom moom lii waa ji wax ci affaire bi lii nga takk moo tax mu sedd lii nga takk kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax surtout ci sunuy doom surtout nag jamono bii nga xam ne léeg-léeg nga gis ku góorgóorlu ci sunna fukki at benn bis nga jékki-jékki di gis ku mu takk dara nga ne ko waaw lii nag waaw may waay man dama wax ba sonn quoi nga bi ma feebaree léegi xaw na yàgg première bi moo dem jëli lii rek takkal ma ko quoi wax naa ba sonn fan yi dama am doom bu feebar ngeen ñaanal ko feebar baa nga bëgg a yàgg démb ma ñëw rek ñu ne am na benn kii bu nekk fële ma ne gis nga de voilà am na benn kii bu nekk fële nee nañ nu mu fooree ma ne waa waa kay na na na nekk foofu na fa yàgg noonu lañ lay def seytaane da lay taf léeg-léeg mu lay test li yàlla indi woon yonent bi doon ko def loolu war na noo doy këcc loolu ku mu doy rek musiba na musiba dana la dal mbokk yi li yàlla indi yonent bi indi nanu doy donte ne dañuy dee ak ay feebar donte dañuy dee ak jàngoro donte dañuy dee ak ay natt donte dañuy dee ak ay problème noonu nanu doy waaw parce que yàgg-yàgg dañuy dee te aussi bu nu yaakaar ne dañ naan gëm nañ yàlla rek dala duñu laal léeg-léeg yàlla nattu la ci sa bopp yow léeg-léeg mu nattu la ci sa njaboot léeg-léeg mu nattu la ci sa alal léeg-léeg mu nattu la ci environnement bi nattu yi fu nekk lay bàyyee ko di xool yow foo toll te njabar dafa dangereux dangereux boo xam ne boo ci xasee dugg amatul amatul terminus yéefir pire ngay doon puisque luñ la wax defal da nga koy def luñ la wax defal rek di nga ko defi xoola ki feebar sangoo deret xoola ki feebar naan sàngara démb damay liir benn téere bu ma jënd semaine bi billahi texte bu doy waar dama ko liir bi ma ko liiree dama tiit ma ni ki ma dendaloon bi ma xool benn waay boo xam ne bi mu faatoo dañ ko jàpp ci mbugal di ko mbugal mbugal goo xam ne am na benn waay bu amoon liir bu faatu ñu indi liir bi suul ko ci wetu waa ji mais kenn xamul kenn xamul kii ku bon la ku baax la papaay liir bi bi mu tëddee guddi mu gént liiram bi mu sul bi jaaw liiram bi bi jaaw mu ne ko waaw yow doom yow barki démb mu la jur nga faatu ñu suul la nga bi jaaw mu ne ko papa da ngeen maa dendaleeg benn waay boo xamante ne naankatu sàngara la dañ koy mbugal ci bàmmee la mbugal boo xam ne mbugal googu moom a tiitloo ba mu ba mu bi jaaw mu ne ko waaw waa jooju lu mu def waa ji ne dafa dafa feebaroon dem ci benn waay waa ji ne ko sa feebar bi sàngara moo koy faj moom it mu topp ci di naan rek te xoolal kooku dara lu mu doon naane sàngara bi pour lan pour wir kon ki nga xam ne daf koy naan nii nag um jëm loolu doy waar la mbokk yi kon noonu mooy tandiku bu baax ci naan la takkalak dafa lii dafa lële fekk ñoom xamuñu xamuñu texte diine yi waaw léeg nga gis koo xam ne sa parent ñooy wax a wax a wax a wax a wax ba nga takk yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na man aqada uqda képp ku fas benn fas-fas su ma nafasa fiha mu ëf ci faqad saxara njabar na mu ne wa man saxara faqad ashraka képp ku njabar bokkaale nga wa man saxara faqad ashraka képp ku njabar bokkaale nga bokkaale lu ci yàlla wax nit mën na naan sàngara yàlla baal ko nit mën na njaaloo yàlla baal ko nit mën na def lépp xeet ci mbon yàlla baal ko waaye ku bokkaale nga deyaale ko yàlla du la baal mukk ci àdduna alxuraan la innahu man yushrik billah faqad xarama allahu alayhi aljanna wa ma'waahu nnaar wa ma lizalimina min ansaar yàlla nee na li wóor tey mbir képp ku ma bokkaale araamal naa ci yow aljanna yow direct safara nga jëm lan la yàlla wax muhammad sallallahu alayhi wa sallam lan la ko yàlla wax la in ashrakta la yaxbatanna amaluk bis boo bokkaale woon sa jëf yépp dana yàqu te wala takunanna xas da nga bokk ci ñu perte su yàlla waxee loolu muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ñun bu jëm fekkee muhammad la yàlla wax ne boo bokkaalee yàq yàqule perte ah yonent bi ne képp ku njabar bokkaale nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na dëgg ndax munoo nekk njabarkat te doo bokkaale ak yàlla parce que foog nga teg jinne yi palaasu yàlla wala nga bàyyi lenn ci diine lu la yàlla sant pour jinne yi defal la li nga bëgg ñoom ngay yónni waaw ñoo lay defal li nga bëgg moo tax bu xaaba yi ngeen di gis yëpp njabarkat yi ngeen di gis yëpp ay bokkaalekat lañ waaye ay yéeféer lañ ndax jàngeen ci suratul baqara ñaar ñi doon jàngal nit ñi njabar lan lañ lay wax وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر bul weddi bul weddi ñoom bala ñu lay jàngal dañ naan bul weddi yàlla lii ak kéeféer la bul ci dugg kufru la njabarkat yi ba yéeféer lañ nit mënta nekk njabarkat lu dul la nga bàyyi lenn ci ponk lislaam yi moo tax gis ngeen ndaw soosu dégg naa temps yi bu mu génnee tale ñu ne ko waxal insha allah mu ne man insha allah fee laa ko teg dégg leen ko télé en direct RFM mu ne man insha allah fee laa ko teg gis nga du ma wax insha allah waa ji ne ko wax insha allah mu ne du ma ko wax man fee laa ko teg du ma ko wax du ko wax wax na dëgg parce que dafa am ñu ngi liggéeyee ndool ñooñu seen pas-pas yi du yàlla seytaane la waaw looloo bëri nag ci nit ñi looloo bëri ci njabarkat yi duñ wax insha allah wala ñuy nëbbatoo diine di def yu bon duñu jàpp wala ñuy naan sàngara di julli duñ jàpp wala ñuy julli am janaaba wala ñu jël kaamil di ko dugg ci biir duus wala di di binde alxuraan bi mbërëg mbërëgu jigéen yooyu la ñuy def dañuy def lu xaram loo xamante ne génn na leen ci diine loolu loolu nag lan moo ko jar alalu àdduna lan moo ko jar lan moo ko jar pour nga siiw pour nga pour nga pour nga après boo dee ah est-ce que ñu ngi xalaat dee kon nag loolu jar na moo tax ndaw sa ndeysaan ndaw sa doon crise mu ñëw ci yonent bi ne ko ñaanal ma ma wér yonent bi ne ko te ngaa bàyyi ni boo dee dugg àjjana mu ne ko kon ñaanal ma ma bañ a wuññeeku su ma kirisee samay awra bañ a génn ndax man àjjana jaral na ma lu ne waaw lan la ko yonent ñaanal yonent ñaanal ko du wuññeeku mu dee crise bi dem aljanna kon ndekee nga dee dugg aljanna nga am ngërëmal yàlla yàlla kontaan ci yow loolu la ab jullit war a tiitaroo waaye du loo xamante ne dangay am fii lu kenn xamul gis ngeen tey njabarkat yi ni ñu amee promotion ci rajo yeeg télé yi koo ci gis ñetti fan ñeenti fan am na 4-4 ginnaaw suba am na benn terrain ba ginnaaw waataati suba tabax na ko air plus air plus nangam commencé nit ñi naan se se se daw di ko wër léegi moo tax ñëpp a ngi jaam ngi njabar gisaane kat yi ni ñu bëree léegi rajo yi télé yi bis bu nekk ñu invité kenn def naa benn émission ci rajo ba pare ma génn ñu may présenté benn xale bu jigéen ndeke moom moo war a toog remplacé ma ci njabar lay wax day day gisaane mu ñëw ba sama kër jàpp rajo bi rek ma dégg ñu koy woo téléphone di ko laaj muy doon xoolal ngay gisaane nit par téléphone ñu ne seytaane la ñu koy leer na loolu moo tax ñu war a moytandiku bu baax a baax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na wa man sahara faqad asraka képp ku njabar yonent bi nee na bokkaale nga mu ne wa man taallaqa shay'an wukkila ilayhi képp ku takk dara yàlla bàyyi la ak loolu ku takk dara rek yàlla bàyyi la ak li nga takk pare ci yow mu xool ndax li nga takk dina la mënal dara ndeysaan wa man taallaqa shay wukkila ilayhi ku takk dara yàlla bàyyi la ak loolu su la yàlla bàyyi sa bopp fu jëm te ngaa wakkirlu ci yàlla wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu wa ala allahi falyatawakkalu in kuntum muminin rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka almasir jullit ci yàlla rek la war a wakkilu ci yàlla la war a jàpp yàlla moo ko war a doy amul lenn lu lay doy lu dul yàlla loo am amoo yàlla perte nga boo amee yàlla ñàkkoo dara pas-pas boobu bu nekkee ci yow da ngay noppalu soo amee yàlla ñàkkoo dara wallahi boo pertee yàlla amoo dara ci àdduna amoo dara àllaaxira parce que àdduna moom yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg li nga fi am li nga koy bàyyi xam nga alal jooju boo ko fi bàyyi woon sax kenn du ko laal sax mu nekk jàmm waaye alal jang ko fi bàyyi ñu noos ko waaw say doom ñëw jaay kër gi léeg-léeg nga dégg benn waaye non paa bi dafa war a dee quoi ñu jaay kër gi ba ma tekki quoi dam ma naaw dam taw dam fa la use ba wala loolu am na ñoo xam ne bala ñuy tekki seen baay dee ñu jaay kër gi jox leen seen wàll ñoom ñu tukki commencé lijjanti ay affaire xoolal loolu te kenn du la ci tal ndeysaan démb démb dama fàttaliku benn dars dafa am benn góor bu amoon ay gëléem gëléem yi dañ leen di ratt ci ngoon leen rattee ba siwo yi fees waa kër gi jël benn siwo ñu jox seen papa benn siwo moom comme day teel a dugg bu ñu toogee bàyyi booru gee rek dañuy teg siwoom ci buntu néegam ak cereem bu toogee ba minuit bu jógee defaru ba pare pour naa fi la guddi mu jël siwoom ak cereem daal di reer benn jour góor gi jóg guddi ne nii bunt bi rek ne nii gisul dara kenn tegalu ko dara mu tëddee noonu reerul ba bët set mu ne xale yi waaw an sama reer démb ñu ne ko papa dañ la fàtte mu ne may dund nekk ci kër gi ngeen fàtte ma may dund nekk ci kër gi ngeen fàtte ma ah yéen bu ngeen ma gisul bu ma deewee nag mu dem marché daan ne ñëw leen ma sarax leen ñu waa marché bi yëpp riir mu ñëw ne leen jël leen gëléem yëpp saraxe naa ku nekk boo jàpp rek sarax naa la ñu jël yëpp yóbbu xale yi ne ko waa papa lii nag mu ne damay liggéeyal léegi sama bopp balaa may dee ngeen fàtte ma démb benn waaye dafa joxe xaalisam nañ ko ataayal ñu ataayal la wala ñu naan tàkkusaan jot ñu jàpp dem jàkk ñu ñëwaat toog di xaar naan deuxième pour ñun ñëpp ñu ñibbi ñu toog toog toog toog ba sonn gisuñ dara ndeke gars yi naan nañ deuxième bi fàtte ñu borom ataaya bi toog toog toog toog toog ba sonn gisul dara mu dugg ci kër gi gisul kenn di ataaya mu gis ki doon ataaya te di taalal tànkam mu ne ko waaw mu ne ko waaw ndaw laa fàtte de mu ne dootul joxe fii ci kër gi ataaya waaw léegi nag yow bu fekkee yaa ngi dund nit ñi fàtte nañ la kon boo dee nag fekkee yaa ngi dund ci kër gi te loolu du kooku rek yan saa yi nga gis kuy añ ñu fàtte ko ku liggéey ñu fàtte ko ku génn ñu fàtte ko boo dee nag kon bu yóbbu nga tal sa bopp léegi jaamu yàlla instant bii ngay dund li nga war a def ci lu baax nga def li nga war a sori te daw ko nga moytandik ko yu yonent bi alayhi salaatu salaam di tere jaam ñi nga xam ko nga moytandiku li muy digal jaam ñi ci lu baax nga def mbir yii ñu wax yonent bi daf koo tere yonent bi dafa tere takk dafa tere fas yonent bi dafa tere njawar nee na képp ku fas fas fas tëf li ci kooku njabarkat la képp ku njabar bokkaale nga képp ku takk dara yàlla bàyyee la ak loolu ku yàlla bàyyeek ay wëñ ku yàlla bàyyeek ay weñ ku yàlla bàyyeek ay petaaw ku yàlla bàyyeek ay këyit foo jëm beneen bi mooy li gën a doy waar mooy lii nga takk boo xoolee tuuti tuuti tuuti bu fekkee am nga xel di nga xam ne lii bu doon jëriñ day jëriñ boppam te li gën a doy waar mooy ñooñu di defaraate loolu balaa ñuy am nit ñi ñooy tax ñooñu am paa bi fasalaate fii balaa muy am xaalis fi nga koy fekk mu toog benn ci néegu ñax wala ci mbaar wala ci baraag wala wala da nga dégg ñu ne mbaar mbaaru diw pa pa diw mbaar ma néegu ñax ma sàkket ba kirinti nding ba foofu la ñuy moccee nga fay dem keneen di fa dem muy fas di takk di jël xaalis di denc ba xëy am kàkkaar romb leen yéen yéen a ko jox seen sox seen ndaw si kañ la am ah kañ la xees kañ la am yaram te bi ko nit ñi commencé rang mu commencé da ngay jënd ticket 2000 fay 10 000 ñu seetal la muy jël par la ñaata personne ah da ngay jënd ticket.
léegi 5000 ba pare fay 10 000 ah léegi 5000 la parce que xaalis bëri na ah kon nag yooyu ab jullit na ko mooy te ndiku te nag tey la ilaha illa allah néew na ñu dul seetlu seetama sama yoon bi seetama sama place bi seetama sama këyit yi seetama sama njaboot yi kii di seet dafa mun dara bu seet mu gis boppam benn waaye nee na dafa dégg benn seetkat bu foor mu ne leen kii xamul dara ñu ne ko wallaahi xam na kii demal mu ñëw waaji ne la ko lu lu fi indi mu ne ko xamoo dara boo xamoon dara di nga xam lu mu fi indi kii ne neen xamul dara yéen yéenay wax waaji te li may li may wax chaque jour mbokk yi li may wax li may wax mooy nekk nekk nekk njabarkat ci Sénégal nekk seetkat neex na yomb na nekk seetkat ci Sénégal ah kay yomb wallahi bu ma ragaloon yàlla balaa ginnaaw suba ma nekk seetkat jeunes yëpp xam naa li ñu bëgg xale yu jigéen yi xam naa lu ñu bëgg jigéen ñu mag ñi xam naa lu ñu bëgg paa yi xam naa lu ñu bëgg xale yu góor lu ñu bëgg Sénégal ñu tukki nga xaat liggéey jeex na bu benn xale bu góor ñëw nga ne ko ah yow de sa yoon bi ubbeeku na yoon bi ubbeeku na de macha allah boo demee da ngay ut xar mu ñuul kuk boo amul loo jëndee xar mu ñuul nga nga nga nga jox ma xaalis ma utal la ko nga rey ko nag bu ci lekk boo koy rey bu la kenn gis gis nga xale bu jigéen bu ñëw lu mu bëgg jëkkër ki muy génnal na ko takk jeex na maire yi luñ bëgg luñ bañ wujju affaire bi jeex na ñii rek la jabarkat yi amee xaalis Sénégal nga ñëw yooyu lañ lay wax sa soxla nga ñëw surtout nag koo wax sa soxla yow luy sa soxla ah waaw man temps yi dama bëgg tukki këy di dëgër këj mu ne ah egsi nga jox ma juróom-ñaari juróom-ñaar ñu la yombalal yu garaaw lan lay wax benn waaye dafa bëgg tukki ñëw ci benn oustaz nag oustaz ñaanal ma bisimilah ñu tàllal loxo yi waaye jàng faatiha falaq ak naas ayatul kursi mu ne mu ne ko lii rek mu ne ko lii kasa la voilà parce que li waa ji wax daf ko yàgg dégg affaire bi yomb ci moom mu yaakaar ne buñ lay ñaanal foog ñu wax yoo xam ne da sant la loo xam ne ah loolu moo tax nga gis mos naa ànd ak xale yi ñuy dem fara école fajar ñuy dox ñu ne tëll ci carrefour rek bii ni jigéen ñëw wàq digg mbedd mi daal ci teg doomu taal teg ci nen loolu dafa wàqi nii ba mu yaatu rek mu teg doomu taal teg nen wane ginnaaw yooyu lañ lay wax ay del dóor demal ba ci Carrefour nga toj ñeenti ne nag nga teg fa juróom-ñaari guro juróom-ñaari sondel juróom-ñaari këyit yu weex yooyu lañ lay wax su ko defee nga defe ne def nga dara wala dama ngu xar mu weex tal tal bu dara ci ci dara ñuul waaw nga tiit wala bu ñuul ko waaw nga doog a yaakaar ne nag affaire yi normal na fekk dara dañ lay nax rek waaw hmm?
dafa dal sama mag dafa gis nga demoon fekkees waaw te temps yi doon affaire tukki yooyu gis nga comme li nga wax looloo xew tey jamono bi tey moom waa ji daal koy nuyu ne ko yow sa yoon daal fa am jafe-jafe nee na moom xaw na ko gëm Mhm.
mun ko mais da ngay génne ñaari naat yu mus ta tëdd ñaari naat yu musta tëb gis nga mun ko loolu fu ma koy jëlee mun ko ah da may jox ci vingt mille ma di jënd ko moo tëll la kooku amuloon xaalis mun ko yii bëgg naa ko de waaye yor ma xaalis fii waaw ah kon bu ñibbisi nag duma ko wax naa mu fii affaire dama yàqale bi gis nga ma daal di
waaw bu ko amoon da koy jox man ko yàlla rek affaire yooyu xam naa ba affaire bi convaincre nag benn jour am ko woo ñuy woote téléphone waaw mooy bandi yi waaye daal di woo téléphone na ko yow man daal yàlla moo dama istixaar yàlla wan ma sa numéro léegi da nga war a génne sarax man su ma génnee sarax bu may def ba da koy jox ku ñuy tooñ da nga koy jox ku ñuy tooñ ku ñuy tooñ maanaam mooy dëmm dëmm waaw
gis nga léegi mun ko léegi nu may def pour kii ko mun pour ma xam dëmm bi xamul xaw ma loolu mun ko léegi da nga may jox numéro da nga may envoyé kii bi séddoo quoi.
Hmm.
sama daana ko mu non da nga wax ku ku ñuy tooñ maanaam dëmm mu ko waaw mun ko ñun dañuy tooñ ñun ay dëmm la rek mu ne teg teg mun ko isa xamal li ma wax waaye da ko waaw da nga wax ku ñu jox ko dëmm ñun suñu waa kër ay dëmm rek waa ñu
waaw léegi yeewu na xoolal tey chaque jour te chaque jour li ci doy waar mooy dañ lay wax loo xamante ne day correspondre ak li nga bëgg waa ji lan mooy bëgg-bëggam tukki mu ne ko na nga ut ñaari naat yu mësta tëb loolu mooy bu ñu tëbee da ngay tukki
man mi arrivé na mas naa gis nga mu ngi bàyyi nii sama téléphone ñu fekk si appel en absence Hmm.
ma woote mun ma waaye sëñ bi dama toog sama der sa numéro feeñ ma ma numéro numéro buy feeñ ma ma déglu ba mu pare mun ma place bi bi- sa béréb liggéeyukaay am na ki nga xam ne ma ngay faral man ko sëñ bi su ma nee na ma rek waaw pare ci coupé ah ngi
mu ngi nii léegi loolu yëpp nag imaginer da ngay lekk sa xaalis ñëpp ay caaxaankat lañ ku ñu mun dara déjà dana jaxase ci ay nit ñi ba pare lekk sa xaalis bu doon sax dee lekk sa xaalis kese am problème léegi nag loolu dalay jaxase ak ñi nga nekk soo amee pas-pas bu wér yooyu yëpp du la dal doo jël sa alal di ko yóbbu ci ñooñu sa mbokk du fa dem sa njaboot du fa dem ku la déggal du fa dem parce que mënuñu dara li yàlla wax mooy dëgg mënuñu boo feebaree boo amee jafe-jafe ñaanalal sa bopp wala nga dem sa mbokk jullit boo wóolu mu ñaanal la waaye dugg ci ay xërëm ak rayal lii ak ay xoolal ay naar yu musta tëbëg ay ah yooyu baaxul ab jullit bu mu def loolu ay sangoo deret ak naan sàngara ak toji nen ak saraxe ay perkaal ak dem ci ay armeel ak léegi loolu lañ xewal dem ci armeel yi di xotti xorma néew yi di jël seeni awraak yónnee nañ ma benn vidéo boo xam ne waaw waa ji demoon di sulli néew bi di jël awra bi bàmmeel bi tànc ko mu dee film bi laa am film bi bàmmeel bi tànc ko mu dee waa jooju dañ ko lakk waa dëkk bi yëpp a ñëw biñ ñëwee ñu fekk bàmmeel bi tànc ko ni mu duggee nii ci biir doon dagg bàmmeel bi tànc ko mu dee ci biir biñ ñëwee ñëpp jaaxle kii lan moo lan biñ ko sullee ñu gis ko mu yor awra waaj ñu xam ne kon awra bi la doon dagg ñu lakk ko police ñëw na mais dañ koo lakk dañoo teg nii dañ ko teg nii ci tali bi taal ko nit ñi dañ koo dóor a dóor fekk dee na mais terewul nit ñi di dóor ay yat gis nga loolu lan moo ko jar ci àdduna te dégg naa ku ñu xamoon ci koñ bala kooku léegi ay mbokkam kooku soxnaam kooku ay doomam yu bon yooyu ba pare loolu sax jàmm la mais ëllëg ci suñu borom la hawla wala sa digganteeg waa jooju dee nga ñëw di dagg awra ah dégg naa xaritam la woon waaye ba mu dee ñu sulli ko guddi gu mu ñëw di dagg awra bi Hmm? loolu la benn waaye wax keroog mu ne audit yi audit yi di Macky Sall di def gars yi dañuy dem ci armeel yi dem ci ay sëriñ sëriñ yi jox leen ay x- gàllaaj ay mbir ne leen bu ngeen ko sexalee néew ñëpp gémmiñ gi ni néew bi ne pat noonu lañ naan pat ci seeni mbir ñu dem bu leen fay gardien yi wala ñoom ñu jéngu demal seen bopp dem gas ba gis bopp néew fexe ba ngaa gémmiñ gi dugal ci ubaat ko suul ko ño- ñibbi seen kër xam nga gardien rek loolu mën a wax ni fii kii sànq lañ ko su loolu kii loolu loolu loolu lu ko jullit ñemee jullit hein loolu lu ko jar ci àdduna nañu moytandiku mbokk jullit yi ñu sàmm sunu diine sàmm sunu pas-pas alalu àdduna amul benn njëriñ yawmal qiyaam wala azabul axirati akbar law kaanu yaalamuun yàlla nee na mbugalum alaxira moo gën a rëy téeméeri yoon boo bu ngeen xamoon waaw léegi yow def nga loolu yaakaar nga ne kenn gisu la ah yaakaar nga ne rëcc nga yowmal xiyaam nga faatu nga ñëw ci borom bi ñu tegal la sa film ah ba pare yow loolu da nga koy def ba pare sa conscience du tranquille foo toog loolu nga defoon ci armeel yi day ñëw ci yow yaa demoon ci armeel yi yaa sulli woon nit yaa def nangam boo tëddee guddi doo nelaw te nag bis bu la néew bi ëppee bopp bis boo ko sullee comme waa ji ni mu defoon dem di dagg awra waa ji waa ji ëpp ko bopp képp ko fa mu dee bis moo demee di sulli ba waa ji ne la nuus jàpp la yàlla souvent inna laa la kulli shay'in qadir yàlla amul lu mu munul mooy misaal mooy li nga nekk léegi misaal moom damay lii barki démb nee naa leen benn téere bu may jënd benn waaye boo xamante ne dañ doon suul néew baga ay ay kiyam wadd fa ay bagage am mu dem ba yéegi nit ñi poosam gisul mu dellu si waaxi néew bi gis ñu seene waa ji bàmmeel bi tàkk au lieu mu suulaat ko mu ne mu ne day dindi seen yi ñaari baaraam yi lakk ba ñuul kukk bi mu nee nii rek bàmmeel ne ba loxo yi lakk ñi demoon jaale ji ñëw fekk muy jooy jooy yu metti mënul nopp ñooñu waar wax ba sonn waa ji bañ a ñu ne ko yow lan la moo leen gis leen ñooñu gis baaraami lakk ñu ne ko lii lan la mu nettali leen ko mu nettali leen ko ne leen sama frère moo faatu woon ñi koy suul samay pièces sama carte d'identité sama pièce yi ma am sama poos daal di daanu ci bàmmeel bi bi ma demee ba yegg ma ne nii gisuma ko ma xam ne ci bàmmeel bi parce que maa ko doon suul xam ne fa la daanu ma tourné ñëw ma waxi rek gis ñu yeew ko ma mu ne kot bàmmeel bi tàkk mu ne ma yërëm ko ma ne damay dindi seen yi sama baaraam yi lakk loolu lakk sama loxo bi waaw léegi nag yow nga dem ne da ngay da ngay da ngay ah da ngay ut yaxu néew ak da ngay ut bëñu néew ak da ngay ŋaa ngémmiñ gaat da ngay dindi awra beeg xoolal ñàkk teggin googu loolu ab jullit da koy moytandiku kon sunu darsu tey mbokk jullit yi mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam li mu wax mooy képp ku fas benn fas fas tufli ci yonent bi nee na yow njabar nga képp koo xam ne njabar nga yonent bi nee na bokkaale nga yonent bi nee na képp ku takk dara yàlla dina la bàyyeeg loolu ay man taallaqa qalbuhu shay képp koo xam ne sa xol bi dafa aju ci dara bi haysu yaatamidu alayhi wa yarjuuhu dangaa sukkandiku ci loolu yaakaar loolu xoola waa ji am ay ndomba yoo xam ne bi muy xëy suba bi mu demee ba xaw a sori mu ne eh chauffeur chauffeur may ma wàcc waaw lan la dama fàtte samay téere bu rekkee moom moo yor oto moom ci boppam day def demi tour ñëw fëgg buntu kër gi këng këng këng këng këng lan la lan la mu ne jox ma sama ndombo yooyu waay ay na allah waay te ak a bëri ana yàlla benn waa ju mag ndeysaan mu ne ma ku mag la woon sama doon liggéeyee wallahi moom ma ko nettali mu ne ma dama fàtte woon samay téere ma dawal oto ba ci digg àll bi ma làmp sama digg leen gisuma sama téere ma def demi tour mu ne ma xël oto bi daw yegg si fëgg ni jox leen ma sama téere yi mu ne balaa ñu ko may indil ma ne waaw waaw man est ce que gëm naa yàlla est ce que man gëm naa yàlla mu ne balaa ndaw si ubbi buntu kër gi ba jox ma téere yi ma demaat sama yoon waaye nee na keroog laa bàyyi téere yi te liggéey na ba retraite yàlla baax dara dalu ko waaw yàlla yàlla baax ak nee na fi mu fëggee bunte ne jox leen ma téere yi indee guñ ko ci la xelam dem ne est ce que man gëm naa yàlla téere dong tax ma dëpp te bi may juddu indaale wu ma benn téere kan mooy juddu takk téere te bu koy dee du ko yóbbu
te xoola fi la yàlla jaar loo nga juddu ban téere la fa musal hum hum nga bëgg na yow doo def dara lu lii an sama téere yi an sama lii an sama laa yenn saa yi nga dégg ku ne lii boo ko takkee lii boo ko kiyee du dëgg dara amu ci dara amu ci nan nan yàlla jubal mbokk yi mu ne sa xol bi bu ci ajoo nga yaakaar ko nga sukkandiku ci wakkalahu llahu ila dhalika shay nee na yàlla dina la bàyyeeg mbir moomu yàlla dina la bàyyeeg mbir moomu wa man qasara taallaqa qalbuhu ala allahi wahdahu kafa képp ku jublu yàlla kese sa xol bi aju ci yàlla yàlla dalay doy ndax yàlla moo ko wax fa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu mu ne sunu borom subhanahu wa taala dafa bëgg ab jullit xolam di aju ci boroomam moo tax buñ la waxee dara nga wax xasbuna allahu wa ni'mal wakil bu la dara dalee laa xawla wala quwata illa billah yooyu ngay tàmmal sa bopp inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ma sha allahu kaana wa ma lam yasha lam yakun yooyu ngay miinal sa bopp yooyu mooy tax nga am pas-pas bu wér yooyu mooy tax doo bokkaale waaye boo tàmmee yu bon yi nit ñi di def te seytaane da lay taf léeg-léeg lu metti dal la seytaane ñëw naan la ah nangam ah gisoo diw koo def rek wér ba pare nit ñu bon yi day ñëw ne ah loolu dara nekku ci xam nga yéen da ngeen di jéem ay ibaadu ibaadolu lii fii lañ ko fekk lii yàgg na fi mag ñi nangam ak nangam gis nga ah lii taxul kenn weddi yàlla ndax yàlla moo la gën a xam ne yow ah ah dangaa feebar yooyu lañ lay gëmloo di la ci xëcc ba seytaane taaral la ko ba nga ne ci daraj nga ñàkk sa àdduna ñàkk sa àllaaxira ba pare yàlla jéppi la xam ne doo tus waaw nga perte mel ni ñoom nag perte mel ni ñoom waaw su ko defee nag xam nga lu ñuy wax ah yow yow kat amoo loo wax fii nga doon taxaw naan ñu lii baaxul te def nga ko ba pare nag mënatoo wax ci kër gi kenn wala ci koñ bi dara ba mu gëm la ndax yaa ko weddi fukki at benn bis nga ñëw def ko pare nga yàqal na la sa daawa yàqal na la sa pas-pas yàqal la sa imaan sa diggante ak sa borom ba pare nga jële ci bàkkaar bu bon boo xam ne yàlla du la baal parce que xam nga ko yaa ko tey kon sa xol na aju ci yàlla waaw allahu akbar ayna allah ibnu omar dafa génn ànd ak gaa yi ci àll bi ñu fekk benn sàmmkat ibnu omar ne sàmmkat bi waa yow sa xar yi baax na de daañu ci jox benn xar ñu lekk mu ne moom moo ko daj ma koy sàmmloo mu ne amaana boo ñu ci joxee benn ki la sàmmloo xar yi boo ko nee tilliyee ko lekk du la wax dara sàmmkat bi daal ne ibnu omar ayna allah ana yàlla allahu akbar gars yi nee nañ dafa xëm bi mu xumil ko mu jàpp ci sikkim bi naan qaala raai ayna allah waaye waaye gars yi sàmmkat bi nee na ana yàlla allahu akbar ayna allah loolu baat boobu war na nekk si ñun ayna allah ana yàlla qaala raai ayna allah ñun loolu moo loolu muy sori ñun yàlla danoo sori bu ñu yàlla jege woon du am benn problème jullit yàlla war na ko jege lépp lu muy rek xelam dem ci yàlla boobu ngay am pas-pas nga am yaqiin am kóolute ci yàlla bu la dara dalee balaa ngay def dara neel bëreet daw ci sa borom dawal ci sa borom xasbuna allahu wa ni'mal wakiil alladina qaala lahum annaas inna annaasa qad jamaw lahum faxsahum fa zaadathum imaanan wa qaalu xasbuna allahu wa ni'mal wakiil loolu alquran wax mbokki jullit yi mu ne faman taallaqa ala rabbihi wa ilahahu wa sayduhu wa mawlaahu rabbu kulli shay'in wa malikihi kafaahu allahu akbar képp koo xam ne aju nga ci sa boroom sa yàlla sa sang sa buur dana la doy ci lépp dana la aar ci lépp dana la wat wata wallahu fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir qaala taala alaysa allahu bi kaafin abda yàlla nee na ndax man doyuma jaam mbokk yi yàlla doyul jaam ku yàlla doyul lu lay doy loola tax bokkaale xam nga lu tax mu garaaw su la yàlla xasul doy bu la yàlla doyul nen du la doy xar du la doy golo du la doy mbaam du la doy fas lu ñu la wax rek da ngay def léegi amatoo lu la doy yow amatoo frontière bu la yàlla doyee nag da nga naan xasbuna allah wa ni'mal wakil jeex na mais bu la yàlla doyulee waa ji ne la ah man de mën naa laa defal li nga bëgg waaye gis nga comme sànq fa ngay ni mbaam mu ñuul de fa ngay ni ginaar gu ñuul fa ngay indi xar bu ñuul fa ngay indi fa nga indi fa nga def waaw fa ngay ni muus mu ñuul ko su ko defee nga nekk ci dëkk bi di xale yi kaay leen dama bëgg ku mu wutal muus mu ñuul ma neexal leen dama bëgg ngeen utal ma kawaru xaj ma neexal leen dama bëgg ngeen utal ma waaw yenn saa yi nga gis ku dem aan dama bëgg ngeen may ma ci sawu gaynde yi waaw ndeysaan am na benn année am ngeen cirque am ngeen cirque cirque mës na ñëw géejawaay boobu xam naa fi ñu bëri ay booy lañ de fii ci stade Amadou Barry ku ko fekk woon fii cirque am ngeen cirque ay tubaab indi fi seeni gaynde ak seeni ñay gis ngeen ah waaw gis ngeen parking bii def nañ fi une semaine dañ koo defar defar ba nga xam ne da nga yaakaar ne France nga nekk ñay yeeg nit ñi kenn dematul kenn liggéeyatul ñëpp ñëw bu guddee rek nit ñi paas di seetaan benn bis benn waay boobu ñun xale lañ benn bis benn waay jékki-jékki rek am lu mu sàcc nit ñi dàq ko sàccaay sàccaay sàccaay ñu gars yi jàpp ko xam ngeen waa ji lu mu sàccoon day ñey ñu ne ko lii nag dafa am ko ma ko yónni nee na bu ko sangoo day ngande ñëpp di ree waa ji day ñey la sàcc rikaar ñey tëbali ko dàq ko sàccey sàccey sàccey bi ñu ko jàppee ndeke day ñey gis la yor ah ndeke dañ ko ko yónni quoi demal nga wutal ma ci puubu ñey yi boobu ñun ay xale lañ de ñun nag ñun tamit ñu jógee fi ñun tamit ñu ne dañuy ut day ñey pour sangoom pour nga ñëpp commencé nag ku xëy suba rek ne da ngay ut si day ñey bilaay dafa bon nen leen yàlla jubal
amoon daal njëriñ dara waaw.
bari war ko wut waaw xoolal lool gëm loo ne boo ko sangoo da ngay ngande comme moom ni mu ngandee Hmm? la ilaha illa moo tax boo gëmul yàlla da ngay dof parce que luñ la wax nga def ko nga def ko luñ la duggloo nga dugg ci ba pare sa alal sànku nga perte yor bàkkaar boo xam ne boo ko dee safara nga jëm kon bokk jullit yi loolu mooy suñu dars tey mu ne wa man taallaqa ala sahra wa shayatin wa gayrihim min almaxluqin wakkala allahu ilayhi man taallaqahu fa halak képp koo xam ne dangaa aj sa xol ci njabarkat yi ak seytaane yi nga aj sa xol ci mbindeef yi yàlla bàyyee loog loolu nga ayal sa xol bu ëllëgee yowmal qiyaam nga al ko kon nañu at suñu xol ci yàlla nañu at suñu xel ci yàlla suñu lépp loolu aaya bi naan inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaatiya lillahi rabbil alamin ab jullit na def loolu léppam na ko jox yàlla mu moytandiku lii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku takk fas fas njabar nga képp ku njabar bokkaale nga képp ku takk dara yàlla bàyyi la ak moom asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh